salaamaaleykum mbokki internetu Rio Plus salaamaaleykum les téléspectateurs tey nag ñu ngi fi nga xamante ne mooy géwél gi ñu fas yéene toog ak benn góor gi góor goo xamante ne macha allah yàlla may na ko si wàllu nga xamante ne mooy géwél gi ñu war a waxtaan ak moom rek ñu daal di koy bàyyi rek mu daal di présenté wu balaa ñi tàmbale li nga xam ne mooy waxtaan bi góor gi nuyu naa la. fay naa la Ndiaye. waaw yaa si jàmm. waaw sant yàlla julli ki rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari di sant Tëngéej gépp ak département bi di sant it toute la région de Dakar et tout le Sénégal ndax man nitu ñëpp laa ñëpp mu bëgg à l'unanimité mhm. waaw ak sant bi rek nga fàttali El Hadji Mbosu Ngom baj géwal Tëngéej communicateur traditionnel de la ville de Rufisque nekk benn symbole boo xamante ne kenn dootu la présenté ñëpp la xam dëgg la ci lu wér ay jaañe suma yaay ay taba jaañ amu yaakaar jaañ ko jur amu yaakaar jaañ nag dem ba koddu deen ko jur ca ngoone paarub lambay jaxe dem ba yaay ñaay xiñaan dem baa ngi daanu deen mam menga mbay ma des ca lambay njug jàmmeeg njug la yaay géey jóob ba jan ngoone ja gànn jóob xew a yaay njekka njaay béytil ma jigéen boor ali ma jigéen boor seen sekki ma jigéen boor xew jool Mali Baye Mango Mbuub sama yaaya ngoog ci tànku baayam. macha allah macha allah suma baay it Cheikh Ngom aminte caam ko jur ku ko jur yaa xam di bajjewal yeen luy bajjewal Cap-Vert ca yeen waaw Moussa Ngom di baayam Moussa Ngom géeja mbay jur ko géeja mbay Ali Ngoone damel teen jur ko ñuy bajjewal ca Lambaay diggante nderef ak ak kaba waaw waaye ba tey Cheikh Ngom suma baay Moussa Ngom a ko jur Moussa Ngom Kayra Ndaw a jur Kayra Ndaw Baaba Ndaw a ko jur Baaba Ndaw saa ndeene aram faxaa ko jur bëlëm ndukkumaan surtout fara jogof njaay ndeene buur ndukkumaan daa mel ni këru géwél lañ dugg nii tey nga bàyyi ma rek nga expliqué ma lan moo war géwél hmm? gi lan moo waral lool géwél géwél tuddul géwél waaw géwël maanaam day nekk un rond comme un cert mhm. ñu nekk sous l'arbre à parable euh, euh, euh. alors mhm. ñu def benn rond rond boobu ñuy def di waxtaan mhm. xalaat yooyu ci jóge ñu toog ma comme par exemple ngeen toog di ma questionné may wax lu baax di def lu baax di nettali histoire yi démb di boole bokk gi loolu mu indi turu géewal lañ ko géewal waaw looloo ko indi mais man maa géer ñi ñoo bokk ndey ak baay suñu ñaari mam ak waa ndooyeen maag waa ndooyeen suñu ñaari maam bokk ndey ak baay dégg nga suma tànku baay wax naa la bëlëm du ko maan waaw waaw ah waaw tëngeej mhm. déedéet du ak démb du benn parce que tëngeej yu démb mag ñi li ñu xamoon moo di géej gi tool yi bu nooree ñu ci géej gi bu nawetee ñu boole géej gi ak tool am jom am ngor am ay valeur solidaire kër goomu sa dem benn cin moo fay tàkk kenn du fa xam ku am ak ku amul ka mag ca kër ga li chefu famille ba ñun ñëpp ku ci nekk la nga am moom nga koy jox ki amul du joxe te kenn du ko xam solidaire bu añ jotee benn bool ñëpp ay toog añ bu reer jotee noonu loolu amatul léegi bopp sa bopp la waaw ñaar ñu bokk ndeeg sax duñu bokk njël kii de man dinaa gis benn bâtiment ñaar ñu bokk ndeeg baay doon na ko ci seen baay ñu séparé leen que même peinture bi sax du moo tax ma ne la nous avons perdu nos valeurs valeurs yi mag yi amoon amatul waaw. foog ne tamit wàllu réseaux sociaux bi tamit bokkul si li xamante ne ah, moo gën a yokk loolu moo yàq réew mi lu la neex wax ku la neex saaga loolu amul woon loolu amul woon loolu moo yàq réew mi xametuñu sëriñ xamewuñu kilifa xamewuñu kenn da ngay toog ci sa réseaux sociaux lu la neex wax ku la neex nga saaga ah wala ñu fay la ne la saagal ma diw nga saaga ko wala xasal ma diw nga xas ko loolu ki perdre suñuy valeur la bokk xam nga ni kooku amul jom amul gàcce du rus kooku baaxul ah te bu jëkk xale da daan jox cër mag exemple bi ma lay jox xale boo dee moom ci mbedd mu def dara da nga koy duma bu demee ci waajuram ne ko ma day bàyyi diw mooma duma mu ne ko loo def mu nekk ko mu nekk waroon na la rey léegi doomu jàmbur dóor duma mu yóbbu la police ndëgam enseignant bi mooy jàngal élève bi dóor ko ñu yóbbu ko police waxatuma laa nga day ak doomu jàmbur ci mbedd dóor moo tax yar amatul waaw loolu yëpp tey est-ce que mën nañ ko defaraat jikko yooyu yëpp jikko yooyu bien difficile de mais mën nañ ko defar parce que ñi ñi doon baax a ngi baax ba léegi mën nañ ko defar ñi doon baax a ngi baax ba léegi ñi doon yaroo ngi yaru ba léegi kër yi am yar am teggin am jom am valeur ba léegi ñu ngi koy am ñi am lu ñuy bañ ba léegi ñu ngi koy bañ ñu ngi koy am am na valeur am na ba léegi mais dafa bareetul comme bu njëkk ba waaw ndax mag ñi dañ doon moytu lu bari waaw loolu euh, man man am na amaana beneen question boo xam ne dama koy posé gor lan mooy gor comme ça duñ demee ba ne nit ki kat gor la gor as gor du tooñ as gor du fen as gor day def li mu man wax li mu man loolu di as gor wéet gore wéetale ko gore waaw loola lépp loola sa ngor mayul rek doo ko def ci sa digganteeg yàlla loolu mooy as gor waaw xanaa ñu dañuy jëm si programme bi nga xamante ne ci àppali moom la ko la koy tuddee le 17. Hmm. programme boobu yow bu nan nga yëg si programme boobu. Ah, programme bi sant yàlla julli ki rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy onzième édition de l' association culturelle artistique les amis de Doudou jaay Rose. boo gisee nag ñu tuddee ko Doudou Ndiaye Rose Doudou Ndiaye da di référence njàpp li ak xale yi jël ci moom référence les membres de l' association. Doudou Ndiaye il est solidaire Doudou Ndiaye il est humble Doudou Ndiaye est généreux très discipliné et très pieux du ànd kuy tux Doudou Ndiaye du ànd kuy naan Doudou Ndiaye du ànd ku dul julli te fu ko julli fekk lu mu doon def bàyyi na ko julli kumu mu àndali da ngay ay doomam ak i yi mu doon àndali bu waxtu jotee ñëpp jàpp julli référence boobu nag moom la xale yi xool ba tuddee association bi les amis de Doudou Ndiaye Rose waaw. ñu naan ay programme yu bëri si ak it mhm. sama digganteeg moom mu bëggaloon ma boppam nekkoon suma mag ju baax mhm. yàlla na ko xare yàlla xaraa jëna l'année deux mille mhm. trois million la ma jox ne ma demal màkk ma jël billet ak lépp bàyyi fi sama argent de euh, pour la maison bàyyi fi liñ may teeroog lépp loolu moo ma ko defal année 2000 bëggoon ma nag nekk suma mag xale yi xool qualité yooyu may defal alors ñu tuddee ko association bi mm-hmm. waaw. le 17 lan lañ programme lan lañ war a séntu. di 17 nag ngéwal a woote. onzième édition de l' association. artistique e culturelle des Amis de Doundiaye dont Ndiapari Ngom est le président ndam ci yàlla Doundiaye Rose moo nekkoon président d'honneur bi du deñ ba léegi ma nekk son vice président d'honneur chaque année que jëfee chaque deux ans njàppal def ko tabarkàlla ñu ñaan yàlla dugg ci bés bi ak jàmm génn ci ak jàmm njàppal nag wàcc na bi mu jëkkee organisé Doudou Ndiaye Rose la jëkk a sagal deuxième première édition deuxième édition man maag ma njob suma mag la sagal troisième édition mu sagal Adja Xaar Mbay tey onzième édition bi sagal na ñoom Pati Mbuub ñoom Adama Fall kuy sama nit rek sagal na tey nag onzième édition mu ne papa doyalu ma yow lay sagalaat loolu sant yàlla la ma sant ci yàlla trop festival bi nag ren lay gën a neex incha allah ku fa ñëw di nga déglu ngéwal waaye nag ñu tuddee ko ñu baax muy kan le président Babacar njaay président Tëngéej FC Babacar njaay bu Malle Ndiaye Malle Ndiaye bu Babacar Ndioro Babacar Ndioro bu ablay Sën Ndiaye Ablaye Sën Ndiaye bu Samba Ndiaye Samba Ndiaye mu Malick Ndiaye ma ca Njànge Ndiaye fara al caag Babacar Ndiaye mu Malle Ndiaye Malle Ndiaye mu Hélène Diop Hélène Diop mu Malle Diop Malle Diop mu Samba Kati Diop Samba Kati Diop mu Busuba Diop bi fa Penda Ndiaye Malle Ndiaye bu Ayda Sabara Ayda Sabara mu Njaga Sabara ma des bayti lay ak kan le grand maire kooku mooy borom day ñëw day ñëw day ñëw kookoy Omar Cissé waaw 2006 la commencé wax day ñëw day ñëw ñëw na tey yàlla dimbali ñu ba 2022 mu ñëw 2022 gi ñu ne yàlla dimbali ko mu nekk ci maire nekk ci député à l'Assemblée nationale moo tax ma ne que day ñëw day ñëw na mu ne ma wallaay ñëw na waaw di nit ku baax di maire bu am fulla am fayda am caractère et fait ce qu'il dit et kokoy Omar Cissé mbokk bàyyim aw yombe Cissé yaay docteur Soda Gueye mbokk bàyyim Adja Mam Khoudia Cissé yaay docteur Soda Gueye mbokk bàyyim awa Adja aw yombe Cissé yaay wëli jaxate secrétaire am mbokk bàyyim Cheikhou Cissé kokoy Ala Cissé ma damel député maire bi ci Tëngéej premier magistrat de la ville de Rufisque gentil humble généreux et général kookoy borom 3 yi moom laa ko tudde 3G yi gentil généreux et général am na solo jërëjëf jërëjëf léegi ma wax di bàyyi njàppali ak kan waa kër Tabara Ndoye nga xam ni mooy mooy mag ci xale yi tey kër Tabara Ndooy Tabara Ndooy nag moo jur moomu moo taaloo Adja Fat si teg ci Adja Ndumbe Caam si ak Tabara si caatloo Adja Roxoye si waaye ba tey Tabara Ndooy moom moo jur Fay Roxoye Fay moomu moo jur Maguette Ndiaye Maguette Ndiaye moom moo jur Ayda Diagne ak Adama jaañ ak mam Alieu jaañ ak Ndeye Diagne ak Awa Diagne Tabara Ndoye nag jigéen gi ñuy wax njowu jigéen Ndoye ko jur njowu jigéen Ndoye mbokk ndeem Selemba Ndoye yaayu Dékke Sarr ñooñu dama wax ne Fatim Gueye seen yaay Fatim Gueye ku ko jur Jibrin Gueye Jibrin Gueye ku ko jur borom Tëngéej kuy borom Tëngéej premier ndey ji réewi Tëngéej muy Mame Bapone Gueye tawu ñongaan ngoone ali su ko jogal burum ndóob kumba jigéenu songaan ngay mam samba léegi mi des ngaal mbay demba xoy mbay demba latti mbay demba xoy yaa bay mbay demba xoy njira demba ndey daal di jéem macha allah borom école mama ancu di ku baax yor école boo xam ni c'est une école qui fait de bons résultats beaucoup d'admissions chaque année ndoy njeñ maalim maram ndoy yaru lool am it teggin am sutura ci moom laa gisee bu weer dee moom bu xale eh, parent bi yeexee fay ndeysaan du bëgg a xale bi ndax bëggul ra ay scolaire eh, scolarisation ay étude am di ko baax di xaritu njàppali nag bés bi kenn ëppalewu ko ci waaw moom mooy ndoy yàlla na àggaleeg sagoom amin ak kan la famille dam Diong dam jong bàyyi As Diong directeur de société bi dam Diong bàyyi Sukay Diong opératrice économique bi Dame Diong bàyyi aw jong opératrice économique bi waaye Dame Diong bàyyi Adrame Diong mon ami mon frère waaye Dame Diong bàyyi kan ah borom tëngéej kuy borom tëngéej l'ami de des Rufisquois et Rufisquoises Iba Mar Diong jàppale bu la famille Dame Diong wàcc na dam Dame Diong bu Amath Diong Amath Diong bu Ndumbe Sarr Ndumbe Sarr Dékke Sarr Kati Sarr kookoy mbonk mbokkam kii seen ñaari maam bokk ndeeg baay moog ndey màgge ñi waaw Déthié Sarr ak Dumbe Sarr bokk ndey ak baay moom mii Déthié Sarr ay maamam Iba Maar Dumbe Sarr ay maamam ñooñu ku leen jur Sele Mandooy Sele Mandooy wax naa ko léegi Fatim Gueye ko jur Fatim Gueye ko jur maam Bapone Gueye euh, Jibril Gueye mu maam Bapone Gueye taw ñongaan doon waaye ba tey Sele Mandooy ak njoogu jigéen ndooy Malami Ndooy seen baay Malami Ndooy kuy baayam njoogu ndir ndooyi koor ak eh, mbokk ndem gani koor ndooy ak yaabe yi koor ndooy ak tine yi koor ndooy ñooñu koor ndooy la seen yaay tudde waaye ku seen baay demba tuut ndooy mu jogal njere ndooy mu bàyyi benn taaw mu njeñi faati malik surtout mama sàmb ndooy borom jagge ak kan ibamar direct ibamar direct mi ngi lay dégg ak waa dama wax ne ibamar jong bu njàppali ne la famille dam jong Dame jong baayu Sukay jong opératrice économique Dame jong baayu Awa jong opératrice économique Dame jong baayu As jong directeur de société Dame Diong baayu Adrame Diong sama waa ji mon ami mon frère waaye nag dam jong baayu kan l'ami de tous les Rufisquois et Rufisquoises kookoy kan def ko lu baax wax lu baax lu mu am joxe ko solidaire humble gentil généreux et discipliné kookoy Iba Mar Diong Dame Diong nag Amath Diong ko jur Amath Diong Ndumbe Sarr Ndumbe Sarr ak Dékke Sarr ak Kati Sarr ak Ñiwi Sarr ak Aram Sarr ak Awa Sarr ñoo bokk ndeeg baay saagoo ne Sarr seen baay waaye kuy seen yaay Selemba Ndooy Selemba Ndooy mbokk ndeem joogu jigéen Ndooy ñooñu Fatim Gueye seen yaay Fatim Gueye ko jur Jibril Gueye Jibril Gueye ku ko jur maam bappoon géy borom tëngéej taawu ñongaan ngoone ali sukka jogal burum ndóob kumba jigéen songaan géy maam sàmba lay géy mi des ngaat ngire mbay demba xoy mbay demba latti mbay demba xoy yaa bay mbay demba xoy ngire demba ndey ndaali jéen waaye <laughs> selamba ndooy waaye selamba ndooy maami ibba maar kuy baayam malaamin ndooy malaamin ndooy ku jur njoogu ndi ak gan koor ak yaabe yi ak ki ney koor ñooñu koor ndooyee seen yaay waaye kuy seen baay demba tut ndooy demba tut ndooy kuy baayam jogal njëre ndooy jogal njëre ndooy kuy baayam baay biram fu taaw baay biram fu taaw kuy baayam ngeñi fatim malik surtout ma yaxara ak baay ndooy ma ñaaw ndooy baay biram ndooy baay biram fu taaw danay ngeñi fatim malik surtout mam ma sàmb ndooy borom jaageej móori ndooy dégg ndooy bàyyi sama ndooy ngela ndax ndey lii su ndooy lii suñ yaayi sama ndooy koo koy daam jong groupe kaay baax de la cité Sococim xale yu baax yooyu nga xam ne chaque année ñu yóbbu ñeenti nit màkk te bañ koy def boobu xale yu ndaw lañu génne seen bopp ki fo maanaam du ñu ndaw rabbin du ñu sabaru du ñu xawaare ana bu jot ñu wootee conférence conférence léeg-léeg ñu woo Latifone léeg-léeg ñu woo Iran Ndaw groupe baax ku ko jiite nag seena bu fay seena bu fay mu Aline Fay Aline Fay mu yoon gëb yoon gëb mu Ayta Jaañ Ayta Jaañ mu Roxaya Ndooy Roxaya Ndooy mu Biringis gëb Biringis gëb mu ndey biram ndooy ndey birom ndooy bu penda waxute ndooy penda waxute ndooy mu tabara ndooy tabara ndooy mu yàgga sow yàgga sow mu Marème Faye Marème Faye mu dëkk Samb dëkk Samb mu soxatil Samb soxatil Samb mu maam Joor Njaay mi war a Jolof wàcc biiram calaan kan ah awa seex mu ama góor wadd sëtëb Yirim Mbay ndeer jama yaay Souleymane li ngay ko mbooj mi ñu marki ngew fara di ku fara koor ndaama dellu ak fasi ndeer booy wadd Marème Ceew alima wadd Marème Ceew Marème Ceew mam caaka way nde jongo may kumba booy awa seex sa maam bu mereem ngaw lay fanaani waaye nag ama góor wàdd sa baay Binta Njaay Farma mooy yaayam Binta Njaay Farma ku jur Omar Jóob Njaay Omar Jóob Njaay ku yaayam Njaay Géy Siis Njaay Géy Siis ko jur Dombur Njaay Dombur ku ko jur Tafsir Iliman Onge Njaay Tafsir Iliman Onge ku ko jur borom jumaa ji ki samp jumaa yi Tëngéej en 1844 muy la deuxième grande mosquée du Sénégal la première grande mosquée du Sénégal c'est Pire qui a été par Khali Amar Fall. La deuxième grande mosquée du Sénégal, c'est Rufisque, qui a été fondée par Maman Ndiaye Ngone. mu Samba Andan Ndiaye mu Buur Maana Sala Ndiaye mu Xureege Ndiaye Bourgueil mu Layti mu Cukli mu Njëklaan mu Sare mu Njaajaan Ndiaye mu Abo Dardar Awa Cheikh Wade foofu nga bokkee ak Rasulillah. Oh, sama maam la macha mhm, mhm, mhm. tax ma wax la ko. macha allah waaw. waaye ak kan nag de maam Aram Ndoye mu duudu ndooy duudu ndooy mu njaga anta ndooy njaga anta ndooy mu meju ndooy aram saar mbaaw ndooy aram saar ndey mu ne ndooy aram saar koña ndooy aram saar aram saar yi tabaro ndooy mbanga njoogu ak ndey gat faal setu sappo koña ak yaayi mbaw ndooy giran ndooyi sappo koña ndey ɗom ndooyi sappo koña setum maram ndiaye ndey demba jeeni beñ compagne beñ nga ami nak sa beñ ko amuli maram ñang siide bi des ngeen congu demba geraati ngent yusun siis ak kam siis ak caba siis yaayi bee ci ndooy kokoy maam aram ndooy mu duudu ndooy fat jaañ ak kan mu njaay siise directeur exécutif ENDA 3D. Les 3D, démocratie, droits humains et développement territorial. si sa yaxara kéba yaay may fatim ganna yaay soob yaxara caw ak wéjji caw ak jombar kew ma jari woon yokk ala yoo seen la sa baay tudda njaga siisey baayam mm-hmm. waaye soxna umu ja moo yaayam mm-hmm. soxna umu ja ku ko Marème Wade Marème Wade ku ko jur Mariyaay Ndooy Mariyaay Ndooy ku ko jur Banda Ngoone Banda Ngoone ko jur Sanu Seck Sanu Seck ko jur Mam Warsu Seck ki Ngoone jeng mi tere ndak yaa naan tetub yaatu may ko dog maram nga ndank pend buurub jële Warsu Seck waa mbaaw bi awaa nga xandan ngirën a nga mbaaw warak Seck ñeewi mbaaw waaye nag ba mu njaay yaay setub kam joobi dibeer ak Birama joobi dibeer Awa joobi dibeer dibéer yaayi awa jox yaayi njare njaay dombur yaayi mëree jaañ kooña yaayi mbéy mu xujja sàmba ak moom mor sisi jama njaay njare yaayi koddumaar gàmmu yaayi alama waaye euh, mu njaay siise kuy sa maam galaay mu kam ndooy mu biram mboor ndooy mu maam fatim fall setu buri fall ak caane gar fall ak sookun waaye nag mu njaay siise kuy sa yaay mati mbeng mati mbeng ku ko jur mataar mbeng mataar mbeng ku ko jur caba ndaw mbeng cabandaw mbeng ku jur mari sembeen mari sembeen ku ko jur ngaa ci géyi biram ndoy sàmba mbokk ndeem googi géyi biram ndoy sàmba kuy seen baay mam bàppoon gay taawu njongaan doone ali kumba jigéen ak songaan allah am na solo madame yónni caam wàdd kooku mbóoj wàdd la jëkkëram tudd mbóoj wàdd mbokk ndey Mamadou wàdd Matar Wade la seen baay tudd waaye Soda Mbow la seen yaay tudd yónni caam caam mhm. Babel Demba caam borom ne ni waa damay faral di wax ne góor baax na jigéen baax na mhm. sër ñaari loxo koy takk tubéy ñaari loxo koy takk yónni caam newul yàcc yàccaaral naan bu ma doon góor moo tax ma tudde ko la la dame de madame Golda maire moo tax ma tudde ko Yacine Boubou yaayi Biram Yacine Boubou ñi génne woon deretam pour Madior Fatim Gol lañ falu nekk buur moo tax bi mu faloo nekk buur Yacine Boubou dem àllaaxira moo tax Biram Yacine ñu daan ko xalamal naka Biram Yacine Boubou bu yàppul ma ngay naan cey mbanga yow cey mbanga yónni ci yooyu jigéen la bokk yónni ci kan la bokk fatim yamar xuri yaay mbooj ndata yàlla mbooj njëmbët mbooj les femmes de Nder ak kan ku yónni ci am Aline Toye Diatta ku ki ñan lay roy mam jaara busa yaay Cheikh Ahmad Bamba ku

cam babel dem ba cam borom ne ne waa si yàlla na nga àggaleeg sa sago cam amiin bëgg ma nag man mii mbësu ngom di bàyyi njàppali bëgg a njàppali teg njàppali place am teg ma sama place waaw ak Malick Mbàcc mu baax mi kooku mooy borom Cap Vert cadre bi nekk Sococim di nit ku baax lu mu am bokk doom doomu aadama kooku nag bu ñuy wax solidarité ak entraide ci Malick Mbàcke la fekke baax kooko baax ak kan El Hadji foofu nag dama fi ñëw kooku dundooy la baayam tudd ay dundooy Moussa la baayam tudd waaye dundooy nag baayam Maguette Lo la yaay ji tudd Maguette Lo mbokk ndeyam Yacine Lo yaayi commissaire Ablaye Cissé Maguette Lo mbokk ndeyam Mati Lo yaay Ibou Ngom Maguette Lo mbokk ndeyam Seyni bu Lo yaay Cawa Seen ak Talla Seen kuy seen baay Moussa Yes Lo Moussa Yes Lo ku ko jur Ngone Ndiaye Ngone njaay ku ko jur Tafsir Gaye Bey Ndiaye Tafsir Gaye Bey Ndiaye ku yaayam Ngone Ndiaye Ngone Ndiaye ku yaayam Njéeme Jonn ngémi jot na ku ko mbañ jot mbañ joon na ku ko jur le premier Buur Siin ay baayam Buur may sa wàlli jot na nag ku am ndey am nga baay tafsir gay bee njaay tafsir iliman onge njaay ay baayam tafsir iliman onge njaay kuy baayam góor gi samp jumaay tëngey en 1844 muy Mamba Njaay Ngoone di sa mbokk yow mi hmm. kooku mooy El Hadj ah. si kan le cadre la fierté de la fierté du Sénégal kooku mooy doo Ndiaye Mamadou Ndiaye di doo le directeur général di CESTI inay formé nag journaliste yi kookoy seen directeur général baax loolu bëgg njàppale nag lu muy def njàppale lay jiital fu mu jëm ne njàppale kañ dem lu mu am jox njàppale lu mu xam jàppale euh, am wax lu jàppale am mu bàyyi kaak moom kooku du as ngéer du as ngéerandoo du géerantu ayam alaaji siidi ndiir yuwa alaaji siidi kuy baayam mbay kuré jandiir mbay kuré jandiir kuy baayam biray ma ndiiri fóotuma njaay biray ma ndiiri fóotuma kuy baayam mam ma ndiiri njallu surtout ma ndiiri njallu ak ma ndiiri fabooli ak demba ndiiri coor ndooy kookoy Seydou Diouf secretaire général du parti PPC parti pour le progrès et la citoyenneté kookoy doomu ndey njàppali kookoy responsable njàppali di frère am mooy borom guddi ak kan ah Kaafa Ñas jigéen ju mën góor jigéen yi am jom ji am lu muy bañ am fulla am fayda am personnalité ak dignité ci boppam di sama doom nag doomi Gumba Ñas jooju jigéenu njàppali nga xam ni daaw terrain la may njàppali terrain bu mag da ngay xool ba fu sa bët yem nekk du ma yem ak yow foofu de terrain boobu dinaa fexe ba nga bati def ci bâtiment ngoon bu ko njàppal tuddee guddi wàccu ko ak kan nag le maire le vrai maire bu yaru bi kookoy maître Assane Kassé licencié en droit maire de la commune de Rufisque Nord yaru lool surtout moo sekk boobu maamam bu musaana nodd fotol dégg ko moo maamam moo daan nottal Alaaji Daawda Njaay wàllu yuwa mu xadamu Cheikh Alaaji Malick Alaaji Daawda Njaay jóge fi muy noddal Alaaji Ousseynou Njaay imam ratib moo daan nodd nodd gu jëkk quatre heures moo daan salaatu foo toll dégg ko mot sek maamam kon Assane Kassé bu baaxee dafa war a baax nii la war a mel maire de la commune de Rufisque Nord licencié en droit baax yaru am xam-xam te doxew ko waxew ko beewul bariwul tiitër simple lool woyof lool ba bu la rombe ñu ne la kii mooy maire la te nga naan déedéet kon maître Assane Kassé le frère de Ndiappali ñu ngi lay woo ci bés bi xam nañ ne daaw kenn mënu la ci woon te xam nañ ne ren kenn du la ci man ah ak kan nag doomu ndey Ndiappali doomu bàyyi Ndiappali ko Ndiappale bokk ndey ak baay kookoy nag le grand bijoutier bi ci passage à niveau turne tourné arrête kookoy Iba Diaw sek mu baax mi mu yaru mi mu yéwén mi lu moom bokkoog nit mi day xëy di joxe ba ngoon jot du tas yaakaar yi kenn soobe soobee yàlla yàlla du tas sa yaakaar tey li ma ci Iba Diaw bu lay liggéeyal rendez-vous bi mu la jox date bi mu la jox booy ñëw mu ne la sa yëfa ngi tey du du rax përëm du rax dara bu dee or or pire la lay tëggal bu dee xaalis xaalisu gal la lay bu dee urus ngalam la lay tëggal kookoy Iba Diaw bàyyi Iba jaw ngom doomi ndeyi njàppali ak Fara Gueye le grand bijoutier moom it di xarit suñu njàppali di doomam saa goñe caane naar ak biram yaasin caane naar kokoy borom coowaan ñu ngi ñaan yàlla yal nañu àggaleeg sago ñu oo nag te ngi gépp le 17 ku bëgg a gis ngéwal ak sañsa bu rafet ak wayu neex pecc bu neex xawaare bu neex le 17 ngéwal li ma moori jële Qatar ak ensemble am batterie ñëwal la ku ñëw di nga gis loo musula gis di nga dégg wa yow musula dégg di nga gis tëgg moo musula dégg di nga gis pecc moo musula gis di nga gis toilette yow musula gis di nga gis xawaare boo musula gis di nga gis gumbe goo musula gis ak ndaw rabin joo musula gis le 17 avril astafurlah le 17 décembre 2022 au cercle Maurice Gueye à partir de 19 heures Tëngéej gépp góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn surtout kilifa aada yi le 17 décembre 2022 ak nag ci ni mujjee woon nag nga xam ni mooy ñaan toujours kooku mooy Seydi Ahmed Sy ñu di ko wax Ngase si mu Serigne Mas Sy Serigne Mas Sy mu Seydi Ahmed Sy Seydi Ahmed Sy moom ma Maxtaar Pend Sy ma Maxtaar Pend Sy mu taf si Demba Buuna Sy taf si demba buuna albadikuwaat jur maam Ousmane maam Ousmane jur Seydi Hadji Malick surtout Seydi Hadji Malick boobu surtout maam Maxtaar Penda boobu surtout maam taf si demba buuna si boobu nga xam ni maa ko jël naka sama njaboot yaa ma doy ñoom ñëpp ñu ngi sa loxo kooku lu njàppaliy def ak sama njaboot mooy ñaan te bu ñaanee yàlla nangu moom it ñu ngi koy woo ci bés bi si Malick le 17 décembre 2022 au cercle Maurice Guèye à partir de 19h bu ko kenn manqué njàppalee ngi woo ñëpp Mamoré ngi woo ñëpp ma Ndiobba it jóge na ba Europe ñëw pour fekk si programme bi mu ngi oo ñëpp bu kenn manqué attention la ngéwél attention la ngéwél attention Alaaji Mbasu Ngom mi ñuy sargal le 17 décembre 2022 à partir de 19 ou au cercle Maurice Guèye incha allah ñëpp nañu ñëw ak jàmm ak salaam. vive nag la fondation Sococim mention spéciale à la fondation Sococim mention spéciale à la directrice de la fondation Sococim madame Patricia Diagne avec le euh, le directeur du cercle Maurice Gueye monsieur Diouf vive la Sococim vive le directeur général Yougo Sow Vive le secrétaire général, M. Aristide. Vive la Socosim, vive la Socosim, vive la Fondation Socosim. Merci encore, merci l'association artistique et culturelle des amis de Dundiaï Rose. la Fondation Socosim, remercie la Socosim. ba le 17 décembre 2022 à partir de 19h au cercle Maurice Gueye incha allah incha allah incha allah